ngeen tey ànd nañu dem jógee seen kër mu daal di ziare papam gannaaw foofu la tabaske tey nag ñi ngi ci benn kër boo xam ne seen kër la sax ndax ku gis Faramaren building cela veut tout dire tey kan la ñu seet si. waa tey nag euh, dañ dama ñëw euh, déplacé wu seet si sama grand frère. Mhm. muy Waly Balago Seck ma ànd ak sama rakk Mouhamed Seck. Mhm. et je que suñu kër la ñu ñëw. Mhm. et euh, mu doon grand bu ñàkk ñaan. Euh, mooy comme moom la yat wi daal mooy lu muy wax à chaque fois. Mhm. et kon nag ñun ay rakam yoon la julli gi ñu ñëw saafoonteeg moom. baaloonteeg moom àq. Mhm. ndax grand bu ñàkk ñaan la. ku baax la léegi nag xam nga dañ naan apprenti yi. Ah. buy jublu faaw mu corné. Ah. bu ñuy dugg rek ngeen corné ko def lu leen neex. nuyoo ak ñu dem euh, gis nga ñi ngi fi nga xam ne mooy buntu kër Wally Balago Seck Wally Balago Seck nag ay rakam ñow ñëw tey di ko baalu ak ay rakam ñoo ñëw tey le jour de la tabaski daal di koy wax grand frère ñi ngi lay baalu ak ziyaare ko xool la famille madame euh, Seck muy soxna Aïdara alors je suis avec euh, Mandiaye et son petit frère Bamba ñu daal di ñëw nag xool daal di ziyaare madame ñi ngi lay ziyaare madame madame mi ngi noonu ñu koy siyaare bu baax baax acca ñu dem acca met jaaja ñu dem faramaareen faramaareen waaw eh. gis nga ni mu ni laa koy wayantoo waaw faramaareen faramaareen gis nga ni mu neexe ni laa koy wayem to faramaare waaw yegg si nañ ma alors daf ñu ko waxoon promettre la <laughs> daal di ñëw fekk mais dañ ko fekk ci beneen anam ñu ñëw tey ziare si ko fekk fi euh, Youssou fekk fi tout la famille ñu ñëw kër Fara Malen building kon ni ñu ko gisee say nga daal di nag ziare si sa mag daal di ñëw baalu ko ak sa mag euh, muy wareef loo xam ne moom nga war a def mais tey def déplacement ànd ak sa rak tey c'est la famille qui se ressemble exactement euh, bett nañ ko nag tey de. waaw eh, nekk na nag lu ma lu ma kontaan lool parce que mooy lu ma à chaque fois Eh, je crois que moom moom moom la yat wi dal eh, moom mooy suñu lépp mooy eh, mooy mooy mooy mooy taaw mooy lépp ñun ay rakam lu ñu war à chaque fois rek mooy ñu wàcce suñu bopp gën a suufe mais est fekk mu tiim tiim parce que doomu doomu géwél la <laughs> waaw kontaan naa loolu fekk nañ fi yuusu itam non ngay dem toogee ci toog toog kii rek ah. <laughs> waaw mais tey dama laa bépp. tey a bàyyi. mais dama dama la fekk tey nga am nu mu mel. waaw waaw waaw dañuy tabaski. dañuy tabaski dañuy tabaski. dëgg la mais tey sa rakk ñëw na tama lay bàyyi nga yegale après ñu waxtaanee waaw maa ngi kontaan trop ci teew teewu ma Ndiaye bi ànd ceeg sama ñaari rakk. Bamba ak Mohamed. maa ngi ñëw ñu bokk ndey ak baay. ñu ñëw seen biir kër nag. moo tax ñu fekk ma ci anam bi. ndax bu doon jàmbur buñ ma woowee dinaa ko wàcc. waaye fi lañ bokk. moo tax duñu wootee waaw kontaan naa trop ci ñëw bi ziar bi kontaan naa trop. te lu te nuyoo sax fi mu waaye fii la may fekk. man mi des man mi fekk. ñu la nga pare ñu daal di yaatal waxtaan. waaw góor. alors mesdames messieurs internautes de Carbuzz je pense qu'aujourd'hui da ngeen am plateau spécial euh, bu ñu décentralisé gis ngeen tey dañu xëy demoon ci Mandiaye Seck dem jëli ko mu nekk ak papam passe ak moom le moment de la fête qui est vraiment exceptionnel il a profité de cette fête pour daal di koy passé ak famille am bi ñu paree ci loolu itam jël nañu moom jël nañu rakam Bamba on a eu l'occasion aussi de parler avec Père Ousmane mais bi ñu paree ci loolu mu ñu jël benn initiative moom en personne ne dafay dem ziyaare ji kenn ci ay mbokkam bu ñu waxee loolu euh, ñu ne ko fan la ñu dem mu ne dañuy dem Nord Foire moom sax euh, wax nañu ko mais surprise la ci ki nga xam ne moom la ñu seet si ñu ñëw ba ci buntu kër gis benn Faramarel building bu ñu waxee loolu automatiquement euh, l'esprit day dem peut-être ci Wally ci Bambali ci Père Thione Mapenda Ousmane whatever bi ñu ñëwee nag euh, mu doon surprise boo xam ne da ko defal sa mag Wally Balago Seck mu doon ziar boo xam ne da ko defal sa mag Wally Balago Seck peut-être wareef la waaye nit xam na wareefam te defu ko Euh, euh, pourquoi l'idée de venir baalu ak ki xam ne mooy sama pourquoi l'idée de venir ziare ki nga xam ne mooy sama gannaaw bu ma la bàyyee nga nuyoog les internautes. waaw euh, li ma la waxoon je crois que li ma la waxoon ci kër gi rek moom laa lay waxaat. Mhm. et moom nag mooy suñu mag. Mhm. moom la yat wi daal. mooy comme ni ma ko waxee à chaque fois. Mhm. mooy suñu mag ñun ay rakkam yëpp. muy man di bambali. ñu topp ci ginnaawam. Eh, wax dëgg yàlla mësuñoo def lu ñu metti te it mësuñoo wax lu ñu metti mësuñoo tooñ eh, rawatina man mii nga xamante nii di Mandiaye sekk ni ma def daal wax dëgg yàlla nit ku la def noonu loo def lu dul fonk ko loo def lu dul bëgg ko te yàlla rekk tax ndax ni mag di def rakam rek la ma def Eh, ma ma kontaan ci loolu nag li gën a yokk tax ma ñëw yaakaar naa ni tabaski bi tey mooy sama premier tabaski ak sama soxna mu defal ma teraanga gu rëy jox ma xar boo xamante ne bi ma ko yóbboo sama soxna dafa kontaan xolam dafa sedd waaw mu ne ma comme sa premier tabaski la noo tey rek ma gaañ la te ni ma ko waxee noonu la ko defee kon nag man maa ngi koy ñaanal yal na yàlla may ko gudd fan. mais est-ce que lii c'est pour euh, faire taire les gens qui ont l'habitude de d'utiliser de mots vraiment euh, yu normalul teg ko seen i diggante naan waa li ma njaay dañoo am problème wu ñu est-ce que lii du tey dafay firndeel nii diggante famille dara xaju ci dana gars yi di wax lu ñu xam. waaw waaw waaw euh, lii nag koo gis rek sa sa yaram war naa daw sa xol war naa tooy. Mm-hmm. ndax moom daal mooy suñu mag. man ma Ndiaye Seck ah moom de fu mu ne jaaral fii wala awal ne falaa jaar de barki maam Cheikh Ibrahima Fall waaw te damaa bëgg nag mhm. rakk yi topp sama ginnaaw yëpp mhm. muy Bambali ba ci Mouhamed mi toog mhm. comme ni ma ko defee ñoom ñëpp nañ ko defee noonu alors euh, je suis avec Wally Ballago Seck le jour de la fête Tabaski ñu ñëw déplacé wu ñëw ci këram tey pour mën a ak moom sur beaucoup de choses peut-être dañu koy def d'une manière plus brève parce que Tabaski la et ku nekk dangay ngay am envie nekk ak sa famille tey ñu ma bàyyi la gannaaw bi ma la nuyoo baalu la ak ziar la ci euh, jour euh, bi di Tabaski yàlla boole ñu baal ku nekk li nga bëgg yàlla jàppale la ci euh, dama lay bàyyi déjà nga nuyoog internet yi nuyoog Sénégalais yi baalu leen ak baal leen su ko defee ñu woyal waxtaan bi Wally maa ngi lay ziar asalaamaaleykum Taf maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñuy seetaan à travers seen site bi Dakar Buzz ah ñaanal jàmm di ko ñaanal Sénégal yëpp ah. di ko ñaanal sumay waajur ah. kilifa diine kilifa àdda njiitum réew mi soppe am di jàmm xarit ak sumay nawle artiste rawatina ah, suma rakk bi di Mandiaye ah di wax ñëpp baal leen ma ak bal naa leen nañ yàlla boole céggal waaw. alors euh, Mandiaye mu def benn initiative jouru tabaski euh, mu dem seeti nekk ci papaam tabaski pare mu ne dafay ñëw ziare si la euh, bett na la parce que yëgoo kiitam bi nga jëkkee dégg mu ne dar way mu ànd ak ay rakkam ñoo ne dañuy ziare ci suñu mag naka la def exactement. waaw ça m'a fait plaisir parce que bu ñëwee fii otewul tàggoowul. dafa wane ne këram la ñëw ndax euh, tabaski bi bés bu yànj la bés bu mag la kenn du dem ci kër boo moomul dafa yóbbu caméra te woote wu waaw yàlla xam na ni moom euh, fii la bokk suma rakk la yàlla dafa dogal ni maa mag gannaaw bi ko yàlla defee ba pare ma nangu ni maleen leen mag waaye ñoom ñu nangu ko et c'est très très important euh, man yaay du wax suma rakk la suma doom la parce que euh, bët bi papa di xoolee doom laa koy xoolee parce que dama gis suma baay jaar fi ànd ak akay akay rakam daj ci lu ne nag yàlla dogal tey yat bi dal ma man samay bàyyi ne fii nangul ma ko Papa Ousmane bokk na ci ñi njëkk a jóg ne Wally mi su ngeen bëggee lu ma neex na ngeen ko topp Papa Mapenda waxi noppi Papa Keba waxi noppi donc ñu ngi ci yoon bi ñu ngi ci yoon bi maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal wér ak gudd fan mhm. ma njaay suma doom la Euh, moom am na lu ma ko laaj sànq peut-être question bi dañu koy partager parce que tout le temps avec les réseaux sociaux pourtant avec li nga xam ne moo di la presse parfois toujours dafay am peut-être les non di whatever que Wally Mandiaye juboo nañu jubo wuñu lii firndeel na ni dara nekku fi yow mi nga xam ne yow yaay kilifa gi yow la yat bi daal kon ni ngeen koy waxee bi nga daan déglu information yi naka la lay def. c'est normal mais loolu euh, fii lañ ko fekk da ngay retaan rek. ndax eh, ni ma ko waxee Mandiaye suma doom la waaye suma nawle la. suma rakk la waaye suma nawle la. ma def mukk lu may def mukk lu may yebee. waaye itam duma ko yeb mukk. ndax àndu nawle ñu àndee. Mm, yooyu dama koy dégg rek. te bu ma ko déggee it du ko woo. ndax moom xam na man xam naa. moom it soxloolu muy woote parce que nit ñi moom dañuy wax rek. Eh, ragal naa kuy jël rakki jàmbur wala koo xamante bokku leen dara di ko di ko wane ak a feeñal doo ko bañal sa rakk mm-hmm. waaw ñoom xam nañ fi ma toll si ñoom donc yooyu moom xam nga mm-hmm. le chien boit la euh, am beneen boo xam ne di wax na ko moom nga yëkkati xar bu rëy def ko loolu du ñu sori parce que sa wareef la mais nga def ko ci presque beaucoup des artistes euh, yëkkati xar def ko jox leen ko euh, média bi wax ci peut-être amaana du loo bëggoon parce que itam il faut accepter que koo xam ne homme public nga c'est tout à fait normal déjà initiative bi naka la jóge staff bi la wala yow en personne yaa jël décision bu ni mel. non du staff bi parce Euh, yàlla dogal na dama koy jël ci sama poos di ko def donc du staf bi waaye ñoom it suñ ko rafetlu woon duma ko xëy na bu ma koy def dama koy yemale si ñoom manjaay rek waaye ñoom ñu ko rafetlu lañ waaw manjaay soo gisee mu ne bi yoon dama ko ñel dinaa la gaañ dugguleet maag moom ñu seq taba xaru tabaski déedéet sama doom la képp ku sant sekk ba su julli bu ne xanaa ma fàtte wala ma fatu waaye kuy sama deret dinaa fexe suma teraanga dem ci yow bu ma ko mënee ba léegi maa ngi koy def waaye bi yoon dafa fekk mu nekk première tabaski maanaam tabas non non tabaski bu njëkkam sax laay wax parce bi yoon dafa fekk mu yor kër yor soxna yàlla dénk ko wërsëg boole ko wërsëgu jigéen muy soxnaam Mariétu boole leen donc Mandiaye waratuñ ko xoolee Mandiaye sekk déedéet mbind bi non non non Mandiaye est devenu une personne beaucoup trop responsable parce que léegi bàyyam daf fi ne mu war ko dawal di dawal waajuram bu jigéen waaye tamit di dawal soxnaam ak askanu soxnaam boole ci ay rakkam donc Mandiaye léegi il est euh, xale la dama koy xool sax dama koy yërëm waaw parce que mënoon na nekk xale aussi topp fugu jenes bi jabar du ne dafa naqari de waaye jabar ndimbal moo koy yor ndimbal ak ay mag jàpp ci ak muñ dëgg dëgg dëgg sëy sëy dafa yàgg sëy sëy du luy jeex donc bu mu amee xelu def ko rek dama ci fier dama ci fier commencement bi nag dina metti torop waaw waaye teel koo takk léegi ku la ciy bëgg bëgg la noonu teel koo takk léegi ba xam ni da nga war responsable lu mu guddi guddi xam nga ni doomu jàmbur nga bàyyi kër ga c'est très bien dafay sauver artiste waa alors mu nekkoon ci benn aventure ak beneen euh, label ñu koy wax waa The Best ñu jékki-jékki mu génn ci aventure boobu war a waat beneen nga nekk magam nekk kilifaam yitam parce que nekk sa doom ko ni nga koy waxee boo ne ko awal fii fa lay teg tànkam bi nga déggee nouvelle bu ni mel ko jóge na The Best mi ngi ci beneen aventure naka la nga jàppee information ak lan nga ko conseil waaw xam nga nag euh, The Best moom ma njaayee ma ko indiloon. wax ma ci moom lu rafet man it ma déglu ko dénk ko kàddu yu rafet ñu tàqali maak ñoom nuyoonte ci kàddu yu rafet donc tey maa ngi koy nuyu nuyu bu rafet di ko sargal di ko ñaanal carrière bu gudd ak xale yi nga xamante ni ñu ngi jaar ci loxoom yàlla sàmm leen aar leen taatal leen parce que tamit xale bu am jom la fexe na ba instauré Euh, boppam fexe na ba mi ngi dimbali xale yi waaye Mandiaye pour man bi muy dem Zébès dafa dem pour xam ni mën na demal boppam xam ni mën na créer moo tax mu jaar fa yaa fusul maanaam su ko neexoon mu ne coonay suma baay Ousmane mooy suma baay Waly mooy suma mag toog këram heure soirée jot mu ñëw jouer première partie ñibbi ñu fay ko cachet non man sam papa defuma noonu déggoo ma ne la sama premier single ba fi may waxee yàlla xam na ni man maa ko def suma alal bopp suma ñàkk bopp kon moom bu taataanee di tàmbale ci boppam war na maa ngi koy rafetlu di ko ci ñaanal jàmm kër gi këram la waxuma la moom waaye bu gàddoo keneen sax indi ko ñu ko waaw. Euh, ci fi ñuy tëjee ci parenthèse bu Mandiaye mooy peut-être bon junj na ma ko kam mi ngi waajal album mi ngi waajal yeneen affaire xam naa ne tey di nga ma ko may euh, lan mooy nekk apport Wally là desu waaw yàlla dogal na ni du ma ni kuy def ci musique sénégalaise dina ma laaj déedéet du ma wax loolu waaye xam naa ni am naa ci wàll. Mhm. te wàll bi ma ci am maak moom mii ñoo ko bokk gannaaw bu ñu bokkee ndey baay ba pare nga suma rakk ba pare ma ji baayam nag teg ci waaw yaayam day wax du rafet chaque fois ne ma ma njaay mii kat bu ko jox xoolee sax rakk sa doom la li ma ci mën a wax daal mooy bu dee talent mi ngi ci moom bu dee jom ak fit mi ngi ci moom bu dee jantal ak body ak lugu artiste mi ngi ci moom non xam nga mën a way rek dayul art dafa garaaw te léegi dañuy showbiz donc mën a way rek doyul talent baax na mais talent dafa am lu mu yàndal te wóolu naa ko ci bu doon lu xaalis di def la kon du toog fii weesu na fii bu doon lu xaalis di def kon weesu na fii yoon la carrière la na ko jël petit à petit nànk-nànk ko ba tey li ñëpp sénégalais yëpp di xaar ci moom ñu gis ko yàlla defal ko jàmm boole ko ki moromam tey bi ma ko gisee mu ànd ak Mouhamed ak Bamba ñuy ay rakkam fekk ma fii ci kër gi kontaan naa trop am naa ci contentement. d'accord alors dañuy tëj nag parenthèse u Mandiaye parce que on a assez parlé là-dessus et c'est ce qui est vraiment important dañu seetlu benn affaire euh, par rapport ak Wally depuis bi ñu duggee ci feebar bi nga xam ne moo di coronavirus Wally dañuy jox ay opus. waaye lay jékki-jékki benn mois jox ñu dara Youssou mën na confirmer li may wax joxaat beneen mois mu jox ñu dara mu nekk des clips ay son yu ñu reprendre pourquoi déjà initiative boobu noonu nga jël gannaaw bi nga defee son wu corona waaw loolu c'était pour euh, euh, dimbali soppe yi ak ànd ak ñoom ci pandémie bi wétali leen parce que man samay studio yàlla dafa dogal fi may dugalee voix mook su ma nekk ñoo taxaloo. waaw waaw man loolu du ma ko kafe kër gii nii tey boo wàccee ci suuf lii rek mooy salle des fêtes nii ñu toog fii di fi tabaske mais suuf bi yëpp studio la waaw kafuma ci réew ma ci waaw musique moom duma ko kafe duma ko caaxaane parce que li ma rek ah, may na ma doole Euh, euh, après corona bi ñu bëri ngi xaar Mandiaye joué Waly joué Bambali joué keneen ak keneen ak joué jusqu'à présent euh, le gouvernement son excellence monsieur Macky Sall amagul décision bu mu jël là-dessus par rapport ak ñu reprendre les activités culturelles peut-être petit à petit lay doon est-ce que amul benn aspect négatif bu mu def à votre niveau am na certes mais est-ce que ni mu leen waroon a tënkee gisoo ni tënkee na leen noonu. waaw mais euh, ku ne xam na ni corona tënk na ñëpp. corona kor na ñëpp. waaw moom te lima ci metti corona dalay kor ele mu daan la du ko def doo daan du la daan dalay téye rek kor rek rokos rek kor rokkos maanaam gaa ñi sonn nañu waaye nguur teguñu ko doomu aadama teguñu ko man ci sama xam-xam bu gàtt suñu borom moo ko dogal alors ci suñu boroom nag ci li muy dogal dañuy mën a nangu ndogal te xam ni euh, nettali moomaw pandémie bi moo gën ñu naan ah moom kat fii la ko fekkoon ci pandémie bi waaw te yàlla dogal na ñu ngi lekk ñu ngi naan am nañ wér gu yaram li may wax rek euh, li waykat bi wax na jàmbu ne boo xëyee war nga sant yàlla mu ne bu xool yow ki tane xoolal bu baax ki nga tane jamono dafa metti bu ñu waxantee dëgg rek kanam la jëm borom diplôme yi ñu ngi taxawalu ñi daan saraxe ñu ngi sakkanal ñi daan maye ñu ngi nëbbatu jamono daal kenn waxatu ko waaw léegi nag euh, pour affaire décision moom

man dama weex donc lool te ni may gisee nii nitu kese laa bëgguma ko ma yàpp ba tax na duma ci jëm lenn rek lu ñu may yebee mbaa lu ñu naan waaye moom lu tax mu def lii ndax bugguma ko ma yàpp euh, dama lay tënkal ñaar rek damay mësa waxtaan ak benn kilifa bu ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane Ba maa ngi tuub sax ci li ma koy tudd ni muy Cheikh Ba jamono yooyu moo nekk impo impo bi metti ci man lool maanaam ci gàttal dagg nañ ma quatre-vingt-six millions d'impôt ci ko xamante ni boobu Faramareen bi ma ko créé sax amul ñaari weer tëj compte banquer yi mu am nu mu demee may góorlu di ko fay di ko fay di ko fay ba mu des douze million mu ne ma léegi dañuy xool nu ñu demee defee moratoire wala nga bind wane ni kat yow mënuloo ñu baal la ko ma ne ko maa bañ mi may seetaan dama ko bëgg a fay ba mu jeex ndax ëllëg ëllëg boobu laay séntu ba tey noonu laa ko fayee ba mu jeex tàkk ñu jox ma këyit bindi Wally sekk de amelul impo Sénégal dara ndax fay na la nangam ci million yi ñu ko waxoon ma fay ko mu metti lool ci man mës naa toog président ndeysaan ma waxoo ko ma ne ko waa mais président man maa ngi doog a taxaw société man awma dara ñu ñu ne ma tapit lii mu ne ma aha ah, wàlli lu fa nekkoon <laughs> xam nga ma expliqué ko kaaf moom wax ko mu ne ma da ngay seeti sa papa Amadou Ba ma dem seeti amadu mu ne ma euh, est-ce que woo nga tonton Cheikh ma ne ko waaw woo naa ko ma dem mais boo comme affaire moratoire ak euh, nañ ko ko baal lañ doon wax te wax dëgg yàlla li ñu yóbbu foofu moo desoon moo ëpp li ñu li ñu fa li fa bàyyi ma ne man sama ci sama ngor fay ko moo ma gënal ndax ëllëg kat ñu xam ni man ci dëkk bi laa dëkk di fay lempo lu mu métti métti donc kooku ku koy def doo bañ ñu tënk la ci yoon dama bañ a jouer mu déborder ñu ne waali la. gëm nga ni dina déborder parce que am na ñu la nam en fait. je le chanteur du peuple. ah da ngay confirmer encore. way yow. <laughs> ma nga loo wax yow nga <laughs> mais tout à fait. waaw ah, yow da ci le fait ko mu ne il est du peuple. waaye mooy mooy le roi du mbalax man maa ko wax. c' est Mandiaye en tant que frère de Wally qui parle ou bien sa est Mandiaye en tant que artiste qui parle. bon c' est Mandiaye le frère de Wally qui mhm. euh, dafa am question bi bu jugee yéen ñaar dafa am keroog ñu toog wax nga jël défense su Wally ne am na lu mu xar yu mu joxe am na ñu ñëw am na ñu ñëwul. nga am kàddu yoo fa yëkkati laajoon naa la encore ne la est-ce que Samba Ndiaye en tant que le frère de Wally qui bien en tant que chanteur qui parle lan nga ci waxaat tey. waaw man li ma la waxoon rek lay waxaat parce que lu rafet la jug pour def ko lu sénégalais yëpp apprécier lu àdduna bi yëpp apprécier li ma waxoon rek laay waxaat ku sa affaire la. d'accord ci li mu rakk bu jël défense wala artiste boo xam dafa jël défense par rapport yi nga joxe am na ñu ñëw am na ñu gëm naa ni gétt ga am na dafa des wala lépp jeex na. waaw loolu moom euh, euh, euh, am na ci droit moom rakk la mhm. ah comme rakk nag moom ah mën na comporter wu des fois comme soppe mhm. c'est normal loolu am na ci droit ah te amaana xëy na bu doon man la tamit noon laay comporté woo ci moom mhm. waaye man loolu moom duma ci wax ndax xam nga ni ku ne xam na ni waal yi. lu mu ndaw ndaw ndaw ñàkkul ñàkkuma fulla kon nag euh, damay def lu sante ko yàlla ndax am yàlla dafa dogal nag dama bëgg tey moo souligner benn affaire il faut ma wax ko Thiat Seck waaw yàlla ko yàlla sàmm xam nga lu tax ma njaay nii sama rakk la mënoon naa ko wone ko Mandiaye kaay jël si sa xar waaye képp ku ma yóbbul ku ma jox xar dama la boole ku ko yóbbu guddi muy benn nit mu ñul la ko ba fa nga ne jox la ko caat ñu woo ko ku ñuy wax Thierno Gadiaga mu ne ko maa ngi ñëwul maa ñëwul sa bopp caat fekk waaw man maa ñëwul sa mbopp ñëw jël si ko tombeek waa daral ba nefa ñi ñëw ci dara li mu wax fa wax bu rëy caat moo wane ni waale mu ngi joxe xar waaye ku ci ne ci ñoom yaa defal sa bopp vidéo ne waale yónnee na ma ndaw ko ci waxu woon doo ko waaye ñoom ñoo baax seen baaxu bopp rek euh, ma leen koy sante na xam nga musique dafa garaaw te showbiz dafa garaaw. gis nga ndaw amul waaw xam nga am bu ma leen joxee. gàtt yàlla def ma ñàkk ko lool te yéene leen ko xam ni rek samay rakk lañ war na confinement jàpp na ñëpp ba jàppale man mi waaye samay rakk lañ te xam naa ni su ma jamono tënkoon war nañ ma ko defal man wala yàlla na yéex ñaanu ma ko yàlla xëy na bu ma fi nekkatu woon sax war nañ ko mën def sama ginnaaw donc dama ko def ak fierte mm-hmm. loo def ak fierté nag ak yàlla rek tax jarul mu indi polémique yal na yàlla defal ñëpp jàmm. kañ la xaar benn benn morceau boo xam ne day am yéen doom yi euh, ba ci booy booy bi commencé récemment le petit frère comment il s'appelle encore. Mm, Mohamed Mohamed Seck. Euh, Wali Mohamed ak yeneen fa kañ la xaar benn opus boo xam ne yéen koy defandoo. waaw xam nga man instant bi jamono moo ñu tënk rek ak euh, corona bi chaque tabaski moom ku ne xam ne man ñi ma jege xam ma xam nañu tabaski ak màggal Tuuba gàmmu yàlla xam na ni beneen nit lay nekk billaahi ñi ma jege xam nañ loolu tabaski màggal Tuuba gàmmu beneen nit lay ne waaw ku ne xam na ni samay bés la man maa ko choisir man la neex you know kenn forcé wu ma ko man la neex ma bëgg ci di gis sam bopp yéeg nii maa ngi ciy defal suñu borom te bi ma ko tàmbalee ba léegi yokkute rek laa ci gis ba tax na ma ñeme ko moment bi nag mu tombeek moment wu confinement liggéey taluma woon dara dul ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal du ma ne man rek la yaakaar nag koo gis yàlla rek yaakaar waaye yàlla dafa dogal euh, dépendre nañ ci man lool pour euh, yóbbu seen kër xar donc ma taloon loolu ba xam nga talatuma liggéey bi mais defaroon naa huit morceaux pour génn ko ci tabaski bi waaw mais comme dama nekkoon ci affaire yi dama naan reprendre la wala yoo xam ne yu bees la ay morso rek ay morso waaw suñu duggoon ci studio bi Mandiaye ñëw na fa xuma la sama album international tegal naa ko plus de trente et quelques morceaux yoo xamante ni munu ma ko utiliser dama ko ne Mandiaye morceau yi kaay jël boo ci bëgg way ko ni ma ko wayee nga dem ñoom su may rakk bu ñu paree pour pour job rek bëgg ko rek non du ma leen gaañ kenn dootul doy fii kenn dootul doy parce que technique baa ngi fi caaj baa ngi fii mën a woy baa ngi fii yéene baa ngi fi te xam naa ni bu ma leen tëjee ci studio maak ñoom dama yërëm dama yërëm. am nga rakk bu bu dugg bu ci dugg bu dégg bu commencé way Mouhamed moom mi nga xam ne mi ngi doog a ñëw. booy Mouhamed sang bi dafa ñoom ñoom ñii bi laay sénégalais yi yërëm. ndax dinañ kontaan lool ci Faramareen yi waaw man damay léegi sax damay téye affaire yi bàyyi defar ko jox ko booy ñu doxal waaw Pathé dama ngay nelaw rek Pathé danga sonn oh Pathé waay. moom mujj na jënd téléphone. waa jënd na ma moom waaw Pathé sa ñuulal bi mi ngi ah, cëm massa da koo jëlee dënn. d'accord ce vraiment plaisir je pense bien que tey plateau Korité la ñu am loo xam ne privilège am ma Ndiaye daal ñu koy defal ñu ñëw. Euh, waaw waaw. paate ñuulal bi boo ko defee danga nga koy raxas sinon xool sa yére mi ngi yàqu yóbbu ko ci mu ci kaw mu raxas la bopp bi dégg ko xool ko waaw tabaski bi la jëlee dënn waaw mu nekk mu nekk une une fierté déjà euh, ndey xaw ma nag ñoom ma njaay dañoo ñaan si ndëwënal xaw ma xaw ma dañoo ziar si mais de toute façon fierté la boo xam ne ñoom defal defal nañ la ko ñoom tamit ñu nekk en retour ñu fekk la tey sa kër fekk la ngay ngay ngay lekk def yàpp bi lu doy waar kontaan nañu vraiment. waaw merci beaucoup man tam kontaan naa maa ngi gërëm sama yi nga xamante ni ah Bambali ah, ah Mohamed ah Bamba maa ngi leen di gërëm bu baax. di ñaanal jàmm di ko ñaanal képp kuy musicien nekk fii ah li ma yéene sama bopp rek su dee yéene naa ko ñëpp yàlla naa ci jiitu lépp lu ma yéene musicien yàlla naa ci jiitu képp kuy téye musique yor micro lépp lu ma la yéene yàlla naa ci jiitu waaw ah, di ñaanal àdduna yëpp jàmm Sénégal jàmm ah, di di di di di santat waaw di sant bu baax taf man dam war a sant man dama war di sant bay pooj man dama war man sant rek laa war a def waaw parce que Faramareen gii man sosuma ko samay bàyyi ñoo fi ne daj lu ne ci musique gën ma cee sonn lool ëpp ma ci mérite lool waa yàlla man la def may flambeau bi waaw defal ma ci nag lu mu ci deful kenn ci ñoom waaw maa ngi koy sant di sant ñëpp ak Serigne Touba waaw. lan mu ngay ngay tàggatoo mais Mohamed après yow di nga am loo defal waale ak Mandiaye su pourquoi pas ah moom non non faw faw nga am loo def wala loo gis yow. non moom fi ne nii bon bon bàyyi bàyyi mën na bu rek ba ci kanam. waaw mi ngi def benn morso te après xam naa euh, euh, magam muy waale dina ko déglu. sama rakk la. Eh, te mu ngi ci sama ginnaaw di ma kër eh, wax dëgg yàlla ni ma Pape Ousmane wane rek moom moom noonu laa ko bëgg wane ndax rakk juma jox cër la waaw moo Bamba dañuy nekk Amérique man seen mag laa mën na ni ma jaay day def li waaye lu ne lañ may defal kon nag eh, sant yàlla waaye di kontaan encore une fois ci ñëw bi ma ñëw fii waaw mooy lu may wax à chaque fois rek waali daal maa ngi koy ñaanal maa ngi koy bàyyeek ak suñu borom maa ngi koy bàyyi ak sëñ Tuubaa mi mu yaakaar waaw te lépp lu mu bëgg ci njabootam ak ci ñi ñi ñi àndal lépp yàlla na ko suñu boroom defal yàlla bu mu gàcce waaw. <laughs> te barki maam Cheikh Ibrahima Fall na ko suñu borom fay xolam waaw. Mm-hmm. sekk nag mooy rakk ji ko bëgg lool mm-hmm. barki sëñ Tuubaa. te yàlla na nga jàmm grand. fi may tëjee mooy dañu ñëw kër gi fekk fi ñu bëri ñoom Youssou euh, fekk fi ñoom Salek fekk nañ fi ñu bëree bari toute la famille euh, beneen du ma ne sax beneen famille mais benn famille la boo xam ne euh, doo fi gis sax ñu sant Seck mais toujours da dangay nekk seen biir Cap Forêt lu mel ni jour tabaski lu ñu mel. waaw kër gi nag moom kër géwél la waaw li ko li tax tabaski bépp ñu nekk ci suuf fii mun na naa toog sama kër ñu daal di rendi xar yi ma toog kër ga ma dem dressé table bi déedéet fii lañ ko wàcce ndax ñu ne ay géwél lañ gi lañu xam famille bi toog mbokk yi ñëw alaaji mbay mais ñoo bokk benn deret Mansour mais yaayam ak sama ah, ah, maag yaayam a bokk benn baay ndey ak baay sax laay wax dama sekk ko jur eh, du waali male Pikine la jóge sama rakk la soppe bëgg ma tabaski bu jot ci man la ñu mooy ñëw jàppale ma moo xaritam bi nu mu tudd ah taga waaw ah yàlla dogal Cheikh Ñaan mii sama guitariste Youssou Dieng sama grand frère Cheikh Ñaan amul fami man laa am ci man la tabaske Pape mu dem bàyyi sama rak am soxnaam tëj këram indi xaram indi ndugam indi njabootam ñëw tabaski fii ci man ay doomu jàmbur yàlla dénk ma leen donc bu tabaski jotee lu ma yeewi yeewi am na ci ñoo xamante ni faaw ma xool fi ñu condition yu ñu tabaskee mhm. ñu dëkk man fii ci kër gi donc ñii rekk la mën a demee amul papa maman et la bonne man néew ma foofu mhm. waaw néew ma foofu parce que ñii ñooy xeex ci mbedd mi ñii ñooy sonn ñii ñooy werante te li ci ëpp ci njëriñ duñ ko sax gis ñoom kon ñoom yàlla na lañ yàlla sàmm Youssou nag da di kilifa ci man. Youssou bu infidèle. waaw dafa di kilifa ci man Youssou euh, li ne ci moom ci aar dafa génnagul. parce que gis naa benn benn benn benn bu bu ngeen di bu ngeen di bu ngeen di benn teaser buy mel ni bon je sais pas si c'est purement traditionnel ou pas mais. Euh, dafa mel ni tey la war a génn wala su may nekk ak moom. du def lu dul di ma yokk ak di ma diggal lu baax léeg-léeg sax ma mere ko ne ko Youssou yow da ngaa ne ni man damaa yor bànk wala man damay for xaalis mu ne ma déedéet Lat Diop Dégane Mbaye diw xam naa nga ko gis woo ko dimbali ko. billaay walaay talaay musuma ne sama papa musuma ne sama yaay musuma ne sama jabar musuma ne samay doom mus jàmbur rek waaye dimbalil diw. Lat Diop diggéen bàyyi diw de gëñ ko ko dégg woo ko orange moo ne ko bañ na ko ba dafa jël orange moo ne ab def ko ci portable pour ñi muy yónnee xaalis donc moom dafa rek moo ko fi indi moo koy gis nag sama wet dafa mel ni su ma nekkee ci kaw seen gestu gis Amady Badiane yàlla xam na ni léeg-léeg ma ci kaw seen feebar du ko mën wax kenn mais su Amady yéegee day mel ni musuma feebar noonu la ma Youssou di def su ma toogee ak moom day dalal sama xel Youssou n'a pas besoin de moi man maa soxla Youssou waaw Youssou n'a pas besoin d'être man maa soxla Youssou te bi ma ko soxlaa woon naa ko de ko kay jàpp ci te ku mës a xam sama digganteeg moom ak ni may waxee ci mbooloo ak fu ma nekk ak gars yi ils comprennent que man maa soxla Youssou j'ai besoin de Youssou Dieng C'est ça. aca je pense que war nañu ñu a euh, tëj plateau parce que man plateau tabaski laa koy wax parce que on a eu largement le temps pour discuter mu euh, ñu fekk aussi toute la la famille et puis ce qui est normal nekk nañ euh, ziare si nañ waxtaan nañ ak moom je pense que moom itam kontaan na Mandiaye aussi kontaan na ak ay fekk naa fi ñu bëri itam ce fut vraiment vraiment vraiment un plaisir mu nekk lu exceptionnel yéen internet yi lañ leen ko joxal mu nekk une première merci beaucoup à toutes et à tous merci beaucoup di baaluwaat ak ñëpp waaw. baal ma la dama dama am tey benn nouvelle boo xamante ni jàpp na képp kuy sénégalais ñu koy wax suñu papa El Hadj Gora mi nga xamante ni moom initié Khelcom Bache mooy borom Khelcom Bache muy góor gu xañ ndawam. jëndee ko taalibe ak liggéey. ak waa orchestre Baobab ñoom itam ñu nekk am légende bu fa jugee itam mu nekk ci musique yaa ma ko yëgal tey kan la. Euh, je sais mooy ki doon yor seen seen concasse la plus plupart tour bi hier même la la génn àdduna euh, je pense balaa ñu jugee léegi léegi léegi léegi dina. je suis ñemewuma utiliser tour mais muy. Ah, mën na nekk je sais pas ah waaw baobab alma alma sama téléphone loolu kay dañuy dugg ci net bi léegi léegi. donc euh, euh, mhm. balaa ngay mhm. ma may may jaale waa Sénégal yëpp di ko jaale waa Khelcom Baas ndax sama wolere la mhm. et puis suma bàyyi la mu bëggoon ma lool nag di ko jaare jaale aram di ko jaale képp kuy musicien parce que Khelcom Baas moom ñëpp a ko bokk di ko jaale it président de la république parce que ku ne xam na nii moo président ah ànd nañ ci anam bu rafet 4 avril lu ne ñu ngi koy def maa ngi koy jaale di ko ñaanal fi mu jëm gënal ko fuufi yàlla na suuf oyof ci kawam ah Balla Sidibé waaw parce que moo yoroon congas ah ñu ngi koy jàllee àdduna yëpp ak Sénégal yëpp ak le monde musique ah waaw donc euh, euh, euh, li ñuy wax tout le temps damay gërëm bu baax a baax waram daan di gërëm sama staff di ko dalee ci njagoro Mamadou Koné Kulim Dioum Mouhamed Seck ah askan bi yëpp maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm di leen wax déwéniti jotaay bi ñu fi toog nag kaddu day jib te kaddu mën ki koy génne mën naa juum suma juumee rek maa ngi koy tuub Sénégal yëpp. porteur de voix la mu fàttali ñu tout le temps sensibiliser par rapport ak pandémie bi fi nekk gars yi euh, bañ a bàyyi seen loxo exactement. waaw mais xam nga euh, pandémie bi moom on est en train de vivre avec la preuve yaa ngi ñuy toog sama wet kii toog fii soluñu sax masque donc. Euh, yàlla nañ ci yàlla musal musal ci mbooloo mu jullit ah, ah, yàlla moom ah, ay baga ay bagaasam kenn xamul nu mu demee ah donc vraiment di leen wax rek comme li ñëpp di wax ndax fagaru moo gën faju waaye comme yàlla dafa dogal su ma waxee ñu dégg ma a kon gars yi nañu gën a moytu rek ah ñu gën a moytu rek man moom nag xam nga moom Eh, doy na waar man damaa damay ñooxu nit ñi rek <laughs> yàlla na ma ci yàlla musal musal ci mbooloom jullit waaw. merci beaucoup merci beaucoup et bonne fête à toutes et à tous ciao.